ñëpp xam nañ ne li ëpp ci suñu askan amuñu couverture maladie universelle ndax ñoom ñu ngi ci secteur fermel ñoom nekk ñu ñoo xam ne dañ leen a embauché ba ñu war a mën a am couverture ñooñu nag ñoo nekk ci les mutuelles de santé donc bañ ci wooyee madame la ministre moom nag elle a su lire entre les lignes mu ne fii nag. war naa faa mën a dugal sama loxo ndax su ma fa dugalee loxo maa ngi jaamu yàlla ci jigéen ñi waaye maa ngi jaamu yàlla ci askan bi yëpp rawatina nag askanu région de Thiès rawatina nag waa Mbour mi nga xam ne moom laa fi taxawal tey di ko waxal madame la ministre lii ñu def tey mën naa laa wax ne département boo demoon tey nga am ci lu ëpp lii ci jigéen nga xam ne sopp boo sopp jigéen ñi benn rawatina les femmes mutualistes sopp nañ la ko fukk lu ne jaral nga ñu lu ko ëpp kon nag ñun amuñu lu dul gërëm la sant la ñaanal la yàlla yàlla mi nga xam ne mooy fay yàlla la yàlla fayal boppam. ndax ku ne xam na ne le 14 mai dañu organiser woon journée de la mutualité des femmes de la région de Thiès ñu def ko promenade des Thiessois invité woon ñu bari nañ macha allah mais Zahra Iyane Thiam ñëw wuy si ak délégation bu am solo. ñeneen wuy si nanu parce que ñu ko parrainé woon médiateur de la république mu ñëw macha allah ak na mu ñëwe ministre yi nekk Thiès kenn ku nekk ñëw ni mu ñëwee Zahra Iyane Thiam nag ñëw daal di leen fuuf ñoom ñëpp macha allah ne jigéen ñii ma gis sañu ma fee jógee te teguma seen loxo ay millions. kon réseau des femmes mutualistes de la région de Thiès muy département Thiès Tivaouane Mbour mu jox département bu nekk 10 million macha allah ñu ngi ñaan yàlla di ci def yàlla barkeel dina ko doxalee doxalin bu mucc ayib ba nga xam ne bu ëllëgee sam xel dina nekk ca nga gën ñoo dolli keneen ku ko dégg te gis nañ koy doxalee macha allah dina ci gën a jàpp bu baax. journée bii nag tey ñu organiser ko fii ngaay union départementale de mutuelles de santé. te boot réseau des femmes de la région de Thiès muy ñetti département yii nga xam ne moom laa tudd danoo waxtaan ba d'accord ne nan ko defee ngaay ndax ngaay dëkku aar la aara ngi fi ku xool taabal ji xam ne affaire u aara ngi fi ku xool la joor kontaan ci ni nga xam ni moom la taxawee fii kon looloo tax ñun ñëpp réseau bi ñu àndandoo ne nan ko defee fii ngaay mexe ñu invité ko invité ko yeneeni ministre yu nekk ay jigéen waaye kenn wuyuwuñu ca moom rek moo ñu wuyu moo ñu déglu moo déplacé wu ñëw ci ñun moo ñu jox 30 millions jigéen ñi mutuelle de santé yi million millions yooyu dañ ko séddalee département bu nekk am na 10 millions departement Mbour am na 10 millions département Thiès am na 10 millions département de Tivaouane am na 10 ñu koy liggéey ci anam bu rafet 10 millions yooyu dañ koy séddalee di ko leblente ci suñu biir kon xam nga ni madame la ministre xam na ni jigéen ñi boo leen joxee xaalis du seey dinañ ko toppatoo ci anam ba mu ware ci kaw loolu tamit ñu ciy suqale mutuelle de santé yi ndax képp ku jël ci financement yi di nga cotiser cotiser say doom ci mutuelle de santé yi kon madame la ministre jaaraama ñuy nuyuwaale aussi suñu naataangoo yi nga xam ne ñoo dekk dans les départements le département de Mbour maa ngi jël nuyoo waa Mbour yépp di ko jox madame Assou caw mu joxal ma ko waa mbuur yépp di nuyu nuyoo waa Thiès département de Thiès di ko jox madame Assou Sarr mu joxal ma ko waa Thiès man may jël sama nuyoo département de Tivaouane di ko séddalee kenn ku ne fi nga toog fekk naa la jox la sa nuyoo di wax ne madame la ministre ñun dañoo nekk ñoo nga xam ne ku ñu jàpp ñu jàpp la danga ñoo lebal guddi dinañ la fay ker kon madame la ministre jàppal ni lii nga ñu defal fa foo ñu woo dinañ la wuyu ndaxte bi nga nekkee ci ministère bi nga nekkoon seexlu woo xooloo boddi woo jëloo kenn nga sànni ko ñépp nga boole ku ñëw nga accueillir ko recevoir man mii li may ndaw ndaw ndaw li may gàtt gàtt gàtt danga may woo ñuy diisoo di jokkoo nga may envoyé message ma lay tontu ma lay envoyé message nga may tontu ca loolu mënoon na dox suñu diggante bañ a dox suñu diggante ak yow kon ñu la ciy sant bu baax ci sa humilité ak ci sa disponibilité madame la ministre parce que c'est pas évident am na ñoo xam bu ñu xasee yore ndombo tànk kenn dootu leen dégg waaye yow bokkoo ci ñooñu gàcce ngaalaama di wax ne nag maa ngi ñaanal ñëpp ku fi ñëw ci jàmm yal na la yàlla delloowaat ci jàmm ca ñun jigéen yi tamit ñu takku ñu takku jàppale suñu bopp jàppale mutuelle de santé parce que ku ne xam na ne weer ñoo ànd ca nag boo yoree xaalis bu dul jeex ci deux jours mën nga ko cee waaye boo duggee ci mutuelle de santé yàlla mën na def wax dëgg yàlla li ngay fay du demee noonu kon maa ngi lancé appel ñëpp képp ku bokkul woon ci mutuelle de santé yi ñëw bokk ci mutuelle de santé di nuyuwaat ñëpp di gërëm jërë ngeen jëf. de Thiès ñoo fi ne moo xam département bu Mbour la moo xam département bu Tivaouane la. moo xam département bu Thiès la bu ma neexoon sax ne duma wax ndax jëf ju réyee loo ci wax rekk mu daal di ëpp waaye comme kàddu yi mënut ñàkk danaa ci wax tuuti rekk tuuti kàddu ndax ñi jël kàddu yépp wax nañ ko moo xam président Anta Mbaye Diop bii la nga xam ne moom mooy président association mutuelle yi femmes mutuelles mutualiste région de Thiès yi ma koy sant di ko gërëm di ko nuyu moom ak équipe bi mu ànd yépp président mutualiste bu département bu Thiès yónnee na suñu bàjjan suñu maman moo ko waxal wax wax bu am solo moom tamit ma koy nuyu présidente Astou Sarr maa ngi nuyu aussi président Astou Thiaw bi nga xam ne moo wax pour le département de Mbour moom tamit moom ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu mbooleem femme yu nekk ci association mutuelle mutualiste bu femme bu région de Thiès. may nuyu représentant maire bi di nuyu également ñi nga xam ne ñoo ne ci comité de gestion bi boole wax nañ leen fii sànq di yóbbante surtout nuyoo Arona ginnaaw bi ma ko nuyoo sant ko gërëm ko ci kàddu yi. di ko yóbbante nuyoo ci wàdd mu seetal ñu ko moom tamit mu am taxawaay ku ma limul rek nang ma baal moo xam ci wàllu ñu yor animation culturelle bi moo xam ci wàllu presse bi moo xam ci wàllu invité yi parce que nit ñu la defalee teraanga boo xam ne mënoo ko fay li nga mën rek mooy wax jërëjëf jërëjëf nag yomb na kon kenn ku nekk war nga ko mën a fekk fa mu toog jox ko loxo di ko jërëjëf kontaan naa ci yow kon ku ma limul rekk man ak délégation bi ma àndal yépp ñu jóge Dakar nañ ñu baal mais xam leen ne xol bu sedd moo ñu jàpp xol bu sedd weesuwul ñu lay dugal biir ngaay lajjoor jiital la ngeen ànd ñu lay tëggal di la wayal ba nga yegg si waaye yéen lu leen di fay vraiment kontaan naa loolu nag bu amee du ma bett lii ngeen def nii bu amee du ma bett présidente Anta wax nga ko sànq danga ne dañu la fekk si dañu leen fekk si si liggéey nit koo fekk si si soxlaam waaye waaye bu la teralee nga xam ne nag war na laa teral ndax état li ko tax a jóg mooy fekk nit ñi ci seeni soxla kon bu ñu nekkee ci gouvernement président Macky Sall dénk ñu liggéey liggéey boobu ñu ñëw di ko def ci askan wi ñooñu gis ko ba seen xol sedd si ba ñuy wax jaajëf kon loolu day wane rek ne li ñuy wax ci liggéey bi nga xam ne état bi mi ngi koy def jaarale ko ci ay filets sociaux jaarale ko ci ay politique de subvention buñ ko xeeb parce que état li ko yitteel mooy redistribution économique de la croissance redistribution économique de la croissance nag boo koy def war nga ko gis ci tali yi war nga ko gis ci infrastructure bi war nga ko gis ci jàng bi war nga ko gis ci université yi gis ko ci jaww ji gis ko ci infrastructure portière yi mais li ci ëpp solo li nga xam ne moom la soxla ci suñu réew yi mooy ñu gis ko ci nit ñi te niñ koy gisee ci nit ñi mooy nga fekk kenn ku ne ca na mu tollool ca la mu yellool ak ca la muy yëngatu loxo état bi dugg ci moom sës ci moom rëkk te li tax kon sargal bi ngeen def am solo ci ñaari fànn la sargal bi ngeen ma defal am solo te jàpp naa ne du sax man la ñuy sargal sargal bi dama koy mujj ëlbati delloo ko ci li ñuy wax les valeurs et les principes de vie et de développement solo premier solo bi mooy wax naa ko mooy kon ñii xeeb naan état bi politique de subvention yi dafa mel ni toq ndox ci biir géej juum nañ ndax bu doon toq ndox ci biir géej lu mel ni du am yéen a ko wax yéen a ne jox nañ ñu 30 millions fekk nañu ca fa ñuy liggéey am na fu mu fatt bunt kon boobu benn la ci solo bi bés bi am ñaareelu solo bi mooy ñi ko def walla boog ca ñamu dem muy ay jigéen ñëpp xam lan mooy jigéen jigéen moo ne ca kër gi jigéen moo ne ci mbedd jigéen moo ne ci santé jigéen moo ne ci éducation bi jigéen moo nekk au début et à la développement jigéen moo nekk ci jàmm ji jigéen moo nekk ci stabilité bi jigéen moo nekk ci boole bi dajale bi pour lépp nekk benn jigéen maanaam moo yor puso bi ak wëñ bi di ñaw yéen nag ngeen doon ay jigéen benn ñaar ngeen ne fi ñuy yëngatu mooy fi nga xam ne bu amul lenn mënul am mooy santé bi balaa nga naan naam nefa yéen yéenay nefa ndax seen liggéey ci wàllu santé ci wàllu tabax nit ci wàllu wér-gi-yaram kon sargal bi dafa nekk lu am solo parce que dañuy wan ne fa ñu ne woon démb ak bërki démb dañ ko war a gën a man taxawal kon fi may tëje ndax comme ni ma ko waxee teraanga mënatul wees li ngeen ma defal ndax man ba ma koy def mën naa ne dama doon liggéey def ko kon lu war la yéen nag lii ngeen def daf leen neex rek nga def ngeen def mais mënoon na leen bañ a neex jóge ci gox goxaat yi nekk diggante Mekhe Tiwaawan ak cees ak fépp nit bàyyi yitteem ak soxlaam ci période bii ñu nekk ngir ñëw toog ne jaay def nit pour kenn mënu ko kon li ma leen di fayee ci loolu nag man lenn rek mooy ñaan suñu borom liggéey ba ñu tàmbali woon daaw ba mu may ñu ñu fekkee ren yaakaar bi ñu am ëllëg ci gën a mën a jàppalante ci gën a mën a ànd liggéey ci gën a mën a weccee li nga xam ne xam nañ ko mën nañ ko yéene nañ ko suñu réew ñu def ko te xam naa ne dina ma ko defal ndax yéen du ngeen ay cuune cuune mënul lii keroog bi ñu defee activité bi place de France ca Thiès keroog ba laata tàkkusaan di jot foofu xar na ñaar kon cuune mënul li ngeen mën te seen réseau mutuel bi réseau bu dynamique la bu am solo la ku ko xamul wala jàppalewu ko wala fulaalu ko wala faydaalu ko dóor na loxoom ci ëkk kon du ngeen ay cuune président doo cuune ña nga àndal du ñu cuune te olof Njaay dafa wax dërëm ak dërëm a mën a ànd di ngeen xam ne du ma cuune danañu ànd danañu ànd ci liggéey dinañu ànd ci li ñu mën li ñu xam ñu def ko ndax yëf yi du alal la ah. uh-huh. yëf yi engagement la ak volonté uh-huh. yëf yi du alal